mbokk yi xutba tey bi ñu ngi koy jëmee ci waxi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ci ndénkaane seexul xadim yonent bi sallallahu alayhi wa bi ci mujjug saxbaan da caa def benn xutba bu am solo doon ci xamle weeru koor addis booba nag ibnu Usayma ak Bayhaqi yu ñoo ko nett li jële ko ci Saman al-Farisi yu ñu ne bi ba mujjug saxabaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax dafa bin dafa wax benn xutba ne ayyuha nnaas qad asallakum sahrun asiimun yéen nit ñi xam leen ne jegene na ci yéen weer wu màgg wu ñu barkeel weer woo xam ne cela la laylatul xadar nekk laylatul xadar bi nga xam ne moo gën junniy weer yont bi ne weer woowa yàlla def na woor ko farata la naafila gu ci am gudd moom coobare wala du farata waaye ca da ci dalay neex rek waaye yiwu ba da ci nekk wax ne weer la boo xam ne ku ci def lu baax ci ay naafile ak i jàng moo nga def farata ñoo yem weer la boo xam ne boo ci jullee farata nag di ëpp doole juróom-ñaar fukki julli juróom-ñaar fukki farata yeneen lu baax loo ca def loo xam ne farata la bu dee koor dana ko ful juróom-ñaar fukki yoon wax na weer la weeru muñ la ndax ku munta muñ doo woor muñ lekk muñ naan muñ ay bànneex yépp mooy tax nga mën a woor moo tax weeru weeru muñ la te yonte bi nee na wa sabru sawabuhu na muñ nag ak payam àjjana rek lay doon weeru weeru dimbalante la ñi man dañ ci dama bëgg loolu ñu ciy dimbale seeni bokk ak néew doole yi weer la woo xam ne sunu borom da ci yokk wërsëg yi ku ne boo selloo bu weeru koor dikkee liggéey am ci weeru koor bokk rek weer ci des moo tax wërsëg yi day yokk ci weeru koor yonent bi wax ne képp koo xam ne dogal nga ci ku koor ku woor nga jox ko lu mu dogoo loola suñu borom dana la jégal say bakkaar te dana la goreel ci sawara kon nag lu am solo la ci dimbalee nit ci weeru koor ma dimbaloo ko lu ndogoo ca kooka ka nga dimbalee ba mu ba mu dog lu mu am ca kooram nga rek da ko da am yool noonu kon da ngay am sa koor yoolu bopp yoolu ka nga dimbalee ba mu dog sam lu tol noonu sunu moom dana ko dana la ko jox waaye du tax mu wàññi ci yool kooka dara nag kooka la war na am lépp dana ko am waaye lu toll noonu sunu sunu boobu dana la ko joxaat ba mu waxee loo ñu ne ko la rasoola yaa rasoola naa laysa kulluna yajidu maa yufattiru bihi shaa'im ñun ñëpp kat amuñu doole li nga wax kat neex na lool ci baax waaye nag xamu ñun ñëpp mënuñoo dogal dogal nit yonent bi neen képp koo xam ne jox nga ku wóor am soow mu dot ca wala meew wala tàndarma wala am ndox sax nga jox ko nit ku woor mu dog ca du tee yàlla dana la jox yool boobu mu wax dana la jégal say bàkkaar dana la koy ci sawara waaye dana la jox yoolu bu toll ne ki nga xam ki nga jox mu dog kon loolu am solo nañ ciy dimbale bu baax yoon bi saraxam teg ci képp koo xam ne fekk nga ku wóor nga nàndal ko jox ko mu naan bu ëllëgee sunu borom dana la nàndal ci mbalkaam moomee ma nga xam ne képp ku ci naan doo marati ba faw bis penc bis bu tàng la bu yàgg la nit ñi da nga gis ku ñaq ba dugg sa bay labti soo ñaq ndax tàngoor wax képp koo xam ne nag jox nga nit mu naan dog dimbali nga ko ci koor bu bés baa sunu moom lay yebal ci da mbalkam yonent bi sax mi kaw sara nga naan ci ca boo ci naanee doo marati xataa yeddu solo kar nga dugg àjjana kon lu am solo la di dimbale ko woor ci bis bii war xafafa an moom li xan mamlukihi fiihi xafara llaahu lahu képp koo xam ne danga am ab jaam wala ku kuy liggéey ci rek waaye bu weer koo dikkee nag la nga ko daa teg ci ay sarsa nga wàññi ko ko ngir yërëm ko xam ne weer wu tëdd la bu daa liggéey ba quatre heures yow midi nga walla nga wàcc ko wala boo ko daa def loolu bari nga xaaj ko def loo ko dara ngir weeru kor yi képp kuy def loolu la yonte bi ne na dis na la goreel ci sawara te ba te da nga tabbi ajana wax ne weer wi njëlbéen ngi yërmande la digg bi ak njëggal la mujj goreel ci sawara la kon fukki yu njëkkee moom jeex na kon ñu ngi dugg ci fukki yi nga xam ne ak goreel la ci sawara yàlla nu ci yàlla dimbale ban bokk ci ñu ni goreel ci sawara ci fukki yi te yërmande yi nga xam ne doon na wàcc ci njëkk yi tam yàlla dajale ak ñoom yonent bi ne weer wi na ngeen ci baril ñeent ñaar yi moom mooy bu ngeen ko def da ngërëmal su da am ngërëmal suñu borom ñaar yi nag moom mënu leen ko ñàkk ñaar yi dem tax may ngërëmal suñu borom nag moo ngeen di wax laa ilaha illallah ci weer wi lu bëree bëri ak di wax astaghfirullah lu bëree bëri loolu boo ko ci weer wi da nga am ngërëmal suñu borom di tudd yàlla lu bëri ci jéggalu sa borom lu bëri di wax laa ilaha illallah di astaghfirullah al azim wa atubu lu bëree bëri waaye ñaar yi nga xam ne mënuñu ko ñàkkee itam nan ko ciy ñaan lu baree bare mooy dugg àjjana ak mucc ci sawara loolu tam nan koy ñaan bu baax ci weer yi yonent bi digal nañu ñu fonk ko di ko ñaan ñaar yooyu kon hadis bi ñu jàng léegi yonent bi leeral nañu ngëneelu weeru koor ak li ci nekk ci aw yiw soññ nañu baax ngeen ñu gën a farlu ci jëf lu baax ci weer yi ci def ay farata weeru koor li ci gën farata yi moo jiitu ñu fexe ba julli yii di ko def ci waxtu yi waaye naafila tam ñu koy def waaye ñu ciy sarxe lu bëree bari te di ciy defal lu baax bokk yi ak ñu ñàkk ñi waaye am mën a muñ nag ci jaamu yàlla ak di dundal guddi gi bëccëg bi baax ci woor di dundal guddi gi ci naafila te fonk ci ñaan bu baax a baax fonk ci tudd yàlla bu baax a baax fonk ci istixfaar bu baax a baax waaye fonk ji salaatu annabi bu baax a baax ndax weeru weeru ñaan la kon nañ ci fonk ñaan waaye dañ ci tudd yàlla nañ ci jéggulu nañ ciy julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa ciy sàbbal lu baree bare abi Hurayra wax na ne Rasulullah sallallaahu alayhi wax na ne weer wii giñ na weer wii julli ji amut lu ko weeru ko gën ci ñoom maa marra bil muslimina sahrun xayrun lahum minhu wenn weer wi woo xam ne danañ ci am li ñuy am ci weeru koor amut waaye naafeq itam wenn weer wu méttee ci ñoom ne weer wi amut wala marra bil munafiqina sahrun sarrun lahum minhu naa naafeq moom du munta woor ko defee day métti ci moom lool bu bëggee woor woor li itam ak coon rek la koy teg Abdullah ibnu Omar radiallahu anhu ma wax na ne yonent bi wax na ne koor ak arxuwaan dañuy ràmm bu bis pencee bu bis pencee koor ak alxuraan dañuy ràmm nit ñi koor day wax ne suma borom kii de maa ko teewanaan lekk teekoo naan bànneex yëpp tere woon nag ko ci koor gi ci bëccëg koor kon nag tin ma ci alxuraan tam wax ne kii de guddi maa ko teewoon a nelaw moo yaa nekk di jàng alxuraan ak di naafila kon tin ma ci kon di jàng alxuraan ak woor dana tax bu bis penc yi ñoom ñaar ñëpp dana lay tënu ci sa borom ñoom ñoom ñaar kuntinu suñu borom dana la tin dana leen tin kon lu mat a fonk la tabe tam lu am lu fonk la ci weer yi yonent bi sallallahu alayhi ko tabe woon la ndax mu sa am soxla ci dara waaye weeru koor dikkee nag ci lay gën a tabe ndax weeru koor bu dikkee jibril da ko daa dikkal guddi gu nekk bu dikkee di nafar moom arxawaan lay dikk ci moom toog di nafaraat ak moom alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wax na ne waxtu woo nga xam ne ci la ko jibril di dikkal ajwadu bil xayri min ar-rihil mursal moo mooy raw ngelaw ni ngelaw gaa ci joxe noonu la yonent yaakaar itam <coughs> noonu la meloon ci weeru koor wax na ne bu weeru koor masaa jubli si moom it mu ko tap ci moom la ma neem ndax la fay ñëw doyewu ko dara loo ko jox lu mu réy réy tegal ci suuf du ko laal waaye teewul nag bu weeru koo ñëwee tab ga day gën a yokk wax waan ne bu xasee ba jublu si loo ko laaj mu ne la xanaa danga koy waajalee sun gan gu tedd ga ñu waaj ñëw loo ko laaj amatul ngant weeru koor yu jox duggee itam loo ko laaj mun la danga da nga ciy ganalee sun gan gi noonu la ma doon ci tabe moom it kon weer yi kun bëgg ku ci dimbalee ku ci tabe la weer yi lu ci am solo la abi umaama dikk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko dikk na ko mur nii bi xam ne yadxul nii aljanna dama bëgg nga digal ma lu may dugal àjjana yonent ne ko alayka bi rek boo bëggee dem àjjana moom del woor rek fayannahu laa xadda la lahu amut lu mu yamal ku bëgg dugg rek fonkal weeru koor bi sallallahu alayhi waxaat ne am na ci àjjana bunt boo xam ne rayyaan lañ koy wax ñiy war képp ñoo fay dugg bis pencee ñiy woor képp ñoo jaar ci buntu ba laa yadxulu minhu ahadun xayruhum te bu woorkat yi duggee nag ba jàll ñu daal tëj bunt ba ku dul woor doo jaar ci bunt ba rayaan boobu kon lu am solo la moom weer weeru koor mbokk yi ñu xam ne weeru koor naafile lu ci am solo la di dem ci jàkke yi di ànd ci naafile yi yool bu màgg a màgg moo ci nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp koo xam ne yaa ngi dem ci jàkka ya ànd ak imaam ba mu naafila ba egg boo ko defee xamal ne mel na ne dundal nga guddi gépp ci jaamu yàlla kon loolu lu mat mat solo la am beneen hadiis boo xam ne tam yonent bi sallallahu dafa xam ne képp koo xam ne yaa ngi naafila guddi weeru koor def ko ngir gëm yàlla ak sàkku ci yool képp suñu borom la jégal bàkka yi jiit woon yëpp kon naafila yi nañ koy fonk baax ca bañ di bokk ci yi nga xam ne rek bu njëlbee nee ñu bokk ci ànd ci naafil waaye bu mujj gaay ñu ci teggi seen loxo <clears throat> ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne koor danoo yaakaar ne boo waree bu ngoon rek da nga war a tegale mel na ndaw ko ndaay rek lekk yu bari ak naan yu bari guddi gépp ngay lekk kanaan loolu taxut ñuy wax ñu woor woor boo dogee da war a lekk loola dëgër rek naan lu la dëgër booy tax nga mën a jàmm waaye boo lekk yenn lekk yi yenn naan yi boo ko defee li war ci guddi gi doo ko mënati walla nga nekk foog nekk ci werante yi wala nga nekk ci bëloot yi wala ñi bu bëccëgee ñeen doo nekk ci dam dam yi nekk ci xaxaloo bi yooyu yëpp day wàññi yoolu koor ñoo xam ne bu wala bu nga yendoo nelaw tayal a tayal ba mel ne koo xam ne doo yëngu kon wax nga ne damaa wor yooyu yëpp bëgguñ ko ci koor koor da bëgg war a nga sawar di jàng di julli di sikar waaye doonu nga tëdd fanaanee xoole yéen doo nelaw wala nga nekk ci télé yi di seetaan ay ay ay film ak i théâtre wala ak i sport yooyu yëpp day yàq wàññi koor wala ngay déglu ay musique déglu loo xam ne amul benn njariñ ci du la delloo ci yàlla doo déglu alxaan doo déglu xasida yooyu yëpp day wàññi koor yëpp day jeex jeexital sa koor ga te day indi bàkkaar kon yooyu yëpp dañ koy moytu moytu bu guddee li xew ci tele yi ñu fexe ba tënk ñëpp ñu au lieu que ñu jaamu ji yàlla wala ñuy sikkar wala ñuy jéggi lu ñu saan tele yi ñoo xam ne lañuy wax daan du diine du kenn lu kenn xam yooyu yëpp nañ koy moytu bu baax ci pexe seetaan rek la ak ay eskat eskat yi ñuy teg waxtu dog yooyu yëpp day yàq waxtu yooyu waxtu ñaan la waxtu jéglu la waaye du waxtu seeraan ay ay fo ak i caaxaan ak ñoo xam ne dañuy foyee diine rek yooyu yëpp dañ koy moytu lépp loo xam ne ay wax la wala ay jëf loo xam ne dafa araam wala day indi bàkkaar dañ koy moytu bu baax nan tax ba ni suñ biir yi woore ci lekk ak naan cër yëpp nga woore ko noonu sa bëri doo ci xool lu araam sa nopp yi doo ko ci déglu sa bakkan yi doo ko ci xeeñal sa làmmiñ yi doo ci wax lu araam yooyu yëpp dañ koy moytu ndax yooyu yëpp day yàq koor seexul xadim radiyallahu taala anhu wax na ne woor dafa am ci sariha am ci xaqiiqa woor ci sariha nag moom boo lekkoo naanoo defoo luy tog doj luy dog rek woor nga parce que ba xëy ba jant fenkee ba jant so bu dee ci sariha lekkoo naanoo defoo luy taxa dog jox sa ak say soxna defoo yii yëpp nga mucc ci bu dee ca sarixa moom woor nga waaye bu ci xaqiqa nag moom moom dangay def loolu ba noppi nag sa xol bi nga génn ci yëpp génn ci rëy iñaan fen jëw gàkk-gàkk xol yëpp da nga koy fexe ba génne ko ci koor yi sa xawaas alxamsa sa yëg-yëg yëpp nga fexe ba doo ci def lu araam sa loxo bi doo ci laal lu araam sa nopp bi doo ci déglu araam sa bis sa xol bi doo ci gis lu araam sa gémmiñ gi doo ci mas lu araam yooyu xawaas xam su yëpp dañ waral loolu bu dee xaqee xam nga tax nga am koor kon nag góor góor lu baax ci koor gi fexe ba di ko taxaw li ci war lépp ñu koy defee noonu ñu indi fi kaa def sa Xaadim boo xam ne mi ngi ko dénkoon Sàmba Lawbe Njaay mi nga xam ne mooy nekkoon buurum Jolof du ko defee xam danoo jëm ci fan yi élection ñoo xam ne incha allah benn bi te moo moo tee mu ñëw dinkaan loo xam ne si sëriñ boo ko dénkoon buur ba jolof ngir moo sàkk woon moom mu dé mu dénk ko sëriñ bi wax na ko dangaa sàkk su man ak waarate mooy jëmee ci moo tax ma bindal la baat yi xamal ne loolu nag ñi ñi nga xam ne ñooy xaccoo réew mi ñoo ñoom lañ koy dénk def ko nga naay xamal ni àdduna lum la jox ci nit la ko jële ci ku mel ne yow la ko jële lu mu la jox rek ci sa naw la ko jële waaye lu lum la joxe tax xamal dana ko jële jëlewaat yow jox ko keneen loolu moom lu leer la ci ñëpp mu ne àdduna tey da lay dimbale ànd ak yow waaye bu ëllëgee nag mu dimbale keneen contre la loolu lépp ñi fi newoon ci pouvoir bi xam nañ lii buñ jàngee li xam nañ ko ña ña la daa àndal ba léegi ñoo lay ñoo la jàppale ba léegi ñoo lay contre mu àdduna dana la reeroo te reeroo reeroo tey waaye bu ëllëgee moo lay jooyloo ñi fi newoon di ree ñëpp tey tëlatoo ree kon nag mu ne bu la àdduna wor ci ci ree ga neexee ngay ree bul yaakaar ne eh, bànneex boobu day wéy mukk xamal na fa innaha xaddaara wa makkaara lu mu neex neex tey xalaata ëllëg xamal ne àdduna workat la kat te ëllëg yi xamaa xalilan taabis balaa yàgg rek nga mer kon nag booy nekkee ci mbégte yi xalaatal ëllëg wa taqtax wa tunkir ëllëg dina la wor daan la fexeel mu ne ko maa lay dénk nag na ngay dimbale ñu néew doole ñi del dimbale ñu ñàkk ñi del dimbale masaakiin yi yow mi kilifa boo dikkee deel dimbale ñàkk ñi ak ñuy doole ak masaakiin yi ci lépp ci buur yi ñooñu dañ leen di fàtte waaye na nga xa ilkifaaf anil jawri wa sulmi lu am solo la mooy it lay dénk ba fexeel fegul ba bul jeng mukk bul tooñ ab buur wër sa jeng war nekk ci dëgg waaye wurta tooñ itam nag loolu góor yëpp war koy seet ndax sëñ bi wax na rek faman salama nadima képp koo xam ne yaa ngi tooñ xamal ne sa bis dana yow ngi rëccu képp koo xam ne yaa ngi jëng xamal ne bis da nga yow nga alko yooyu yëpp kon bu ñi ñi ñi ngi fi nekk war nañu ñi fi war a ñëw nañu bàyyi xel ci loolu sëñ bi teg na ko wala tansa an allazi fi yadika wa asbaxta fihi min annaami na nga xam ne lépp loo xam ne am nga ko ci xéewal xamaa ne yaa ngi ko jële nit ba mu faatu nga jële ko ca moom buur lu buur nguur goo am rek buur bu fi ne daa faatu nga sokkee jot ca nguur googee nit tam teraanga joo am rek xamal ne danga ko jële kon nag na nga xam ni loolu loolu nga xa jële woon ci nit loolu dana jógewaat ci yow wa sa yaxruju min yadika min yadika misli ma saara ilayka ni mu ñëwee woon ci yow nag nit faatu wala nit folliku nga jot ci nguur ga na la leer na bisaat dana ñëw nga faatu baa nga folliku keneen jot ci nguur ga loolu boo ko xamee rek anoon doxin yoo xam ne doo ko doxee mu tekk ne ko fattahit bi fii maa yéen ko fi daree ni na nga farlu ci loolu lay jariñ ci àdduna ak jëngukat yi moom àllaaxira booy luñ ko ci waaye sëñ bi nee na kilifa day lépp loo xam ne dañ la jariñ àdduna ak àllaaxira dañ ciy farlu xabla xoroo jëkka mi ne nax bala ngaa ñàkk li nga amoon wala wax xabla xoroo ji nexam min ka wala nga yoroon jóge ci nga génn ci nexam moom nga faatu wala nga folliku daana ko intahat an nasiatu laabire gi foofu la yem fen xabil tëxa falaka fekkee ni ma la ko waxee def digloo nga digloo ko digloo nga ni ko defe ko ni dana la jariñ lool waaye boo ko deful nag sa bopp beneen laabire bi sëñ bi moo ko jëbe jëbe ci ay taalibeem illaa man yad'awa at-taxalluq bihi mu ne maa ngi digal képp koo xam ne mu ngi woo mi ngi woote ne maay kilifaam képp koo xam ne yaa ngi woote ak taalibe sëriñ bi sëñ bi nee na mi ngi nga topp yàlla topp yonent bi sallallahu liggéeyam bépp li jaamu yàlla ak liggéey yonent bi sallallahu moo ko taxoon liggéey kon nag ab taalibeem daa war a góorgóor ci ñaar yooyu jiite ko ci léppam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka maa lay digal itam ab taaddumu maaru say ahlil ardi ñu am ay teggin ak kilifa yi ab murit day am i teggin sëñ bi digal nañu moo rem kilifa yi bokkal na ni am ak ñoom ay teggin benn njëttani boo maxan kullu ma yu addi ila mufsadatin fil xaali wal maali lépp loo xam ne di indi yàq moo xam yàqu àdduna moo xam yàqu alaxira muy wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw lu ma di doon sëñ bi tere nañu ko fii ne nan koy moytu baax waaye añ ñettani añ ñettani boo kullu ma yu addi ila tasassuli aw fasadin fil ardi lépp loo xam ne day yëngal suuf si wala mu yàq ci kaw suuf loolu tam sëñ bi nee na nan koy moytu bu baax kon ndigal yooyu sëñ bi moo nu ko digal ñun taalibe yi ñu xam suñu bopp xam ne sëñ bi lu ñu digal mooy topp yàlla ak am ay teggin ak i kilifa yi waaye ñuy moytu lépp loo xam ne day yëngu yëngal dëkk bi ak yëngal suuf si ak lépp loo xam ne day yàq yàqal sa mbokkum jullit wala yàq suuf wala yàq lu bari doon sëñ bi tere na ko fa man raa xatti haasa aw raa xatta noxila minhu mu ne képp koo xam ne lii ma lii ma bindee gis nga ko wala wala kay da koo gisee ci yeneen loxo walaw bi wasaa iti doonte da koo jële ci ñeneen men yan sa boone illaye aw sam am samxahoo wa xaalafoo fala yulu man na ahad képp koo xam ne nag ab taalibe nga sëñ bi nee lii mu digle agsi na ci yow ak nu mu agsee ci yow rek nga lànk def la neex sëñ bi nee na bul yedd kenn yeddal sa bopp loo ci fekk yow kon loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax kon boog nanu góorgóorlu baax ci waajal lii nga xam ne moom lañ jëm ca fas yéene ko rafetal rek te mun eggee ñu xam ne ki yàllay fal moom falu na ba noppi kenn munta teemu falu ñun nag sabab lu leen man sabab lu mu leen man ak feeñal suñu bëgg ci kañ bëgg waaye mujj ga nag yàlla rek moo xam moom noppi na ca bu yàgg xam na kii falu yalla na ki muy fal doon ki gën ci ñun yàlla na fal gën ki gën ci réew mi alhamdulilah li hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya wa axiru da'wana alhamdulilahi rabbil alamin